Sénégal delloo nañu njukkal Madieng Khary Dieng administrateur civil bu mag ba xereñoon lool ca liggéeyam Dieng Khary Dieng génn àdduna aljuma ji ñu génn yamook ñaar fukki fan ñaar ci weeru novembre atum 2020 ba mu amee lu toll ci juróom-ñetti fukki at ak juróom-ñett ca Rabat nekkee ca Maroc ràññeeku woon lool nekkoon fii administrateur civil bu ñu ràññee lool ci atum 1991 ba 1993 nekkoon tamit jëriñ ji dénk lu jëm ci wàllu forces armées ci atum 1993 jàpp 1995 nekkoon na fi tamit ambassadeuru Sénégal ci Gambie ci atum 1993 jàpp 1998 mi ngi gane àdduna le 21 novembre 1933 ca kokki nekkee ca région bu Louga moom ma jëng xari jëng tey lañu ko jébbal boromam ci dëkk bu sell bi di Touba armée li bàqiye yi waaye taxawaay gu am solo goo xam ne amal nañ ko njabootug Serigne Fallou googee nga xam ne moom la yaakaar ci teewaayug Serigne Abo Mbacke xarit am di jàmm àndandoo ak kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba liggéey gu am solo gi nga xam ne itam liggéeyal Dieng Khary Dieng am na itam ab bërëb bu ñu ko tuddee di cité nekkee ca géejawaay fi ñu toll ni nag mi ngi noppalu këram gu mujj dëkk bu sell bi di Touba